auzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfati ci Cheikh Ahmadou Bamba waaw lii ngeen di gis nag mooy kuréel Seydina Ousmane bu Sam-Sam 3 ñoom ñooy def seen 4 avril di ko sante ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba tax na moo waraloon bis bi tey ñu ñëwoon di sant ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul borom numéro 4 ca bureau ba ca Ndar moom mi nga xamante ni moo waraloon indépendance du Sénégal mu mel ni nit ñu bari dañ koo umpalee waaye day mel ni bis bu ne rek saa su ne ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul day wane boppam ba bis bu ne ba waxtu bu ne ba saa su ne ba ci ay heure yu ne ba moom moo waral moom moo woon mooy ki nga xamante ni moom moo waral moom moo ni si maamul wara asli la dalay fiyat yi ba maarum tuhu min malikin xaadilin amin ba tax na dinañ ci woo benn jëwrin interroger ko laaj ko ci bis bi maanaam nu mu ci def maanaam nu mu ci sante sëriñ bi ba tax na mooy ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mooy yaakaari jàmm mooy ki nga xamante ne tey bu ñu amee jàmm moom la bu ñu amee tawféexi jàmm yàlla moom la kon yaakaar naa loolu day jar maanaam yaakaar naa loolu day jar maanaam ñu woo kenn ci jëwrin yi maanaam di woo jëwrinu kuréel gi ñëw maanaam wax ko laaj ko ni mu sentir bi wax ko ni mu sentiree bis bi ba tax moom mu wax ci yëg-yëgam ci bis bi ñu koy laaj kii mu ngi tudd sëñ Modou Kara ñu koy bëggee bu baax a baax sëñ Modou Kara dañ lay laaj bis bi tey noo ko yëgee ak ci noo ciy sante Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom lañ lay laaj tey ci bis bi. waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul amaana ñu ne lii nii lii yombul quoi lépp rek sëñ Bamba la rek lépp Bamba ji waaw yéen a ngi koy gisee noonu Baye Fall yi ñooy dund seen mbégte saa su di dund seen àjjana saa su ne na ñoom seen mbégte rek la ñuy am. fetal yu naan dëkk Bamba nu jaral ji xaari bakkan yu am kun Bamba nu jaral ji xaari yu am kun yu naan kun yu am kun yu am kun di dox ci kun balum wax muy Mbaye ma ñëw fekk fi Baye Fall yi ma ñëw fekk fi Yaay Fall yi ne def si li nga xam ne mooy maanaam yëngu ah, si nuyu naa la. waaw tey ñu fekk leen ci 4 avril bi ngeen ànd ak Fall yi ak Fall di yëngu ah, tey bëggoon naa xam tey seen yëngal bi tey lan ko waral. ah sant rek ñu ngi leen di nuyu leen ziar baax sant bu tedd gi rek waaw ah, sant bu tedd gi rek. tey daal dafa mel da ngeen di 4 avril. waaw dañuy sant tedd gi rek yeyoo

ba tey nee naa la ah ma taxaw ak sama yaay ju ji ma ñëw fekk tamit mu daal def këlam ah, yaay nuy naa la. fay naa la sama doom. waaw tey ñu ñëw fekk la fi ah ñuy def 4 avril ñu ñëw fekk la fi ngir maajal li nga xam ne moo nekk sëñ bi. ñun dañuy màggal Serigne Touba Khadim Rassoul di màggal maam Thierno Ibrahima Faty mi ñuy yaakaar. kat xeexuñu xulowuñu jaamu la ñuy wër yaa salaam la ñuy liggéey te yéen ñi fi ñëw teew ñu fi yal na leen yàlla defal jaam ñun santam lañ dëkk santam la ñuy tiitaroo Serigne Touba rek lañ bëgguñu keneen ku dul Serigne lu waay am te amoo borom daaru amoo Serigne Touba jëlal. macha allah a ko déggandoo ndax nee na loo ndaam si sax euh, borom euh, télé sax euh, nee na. tey duma bàyyi benn yoon damay xuuseeg xool yaay Fall yi xool li nga xam ne moo nekk Baye Fall yi nekk fii xam ne moo nekk Serigne Saliou euh, di màggal képp ki nga xam ne euh, Serigne la woon euh, tey moo tax ngeen waaw loolu dëgg ñëpp dañuy maña ay colonel ñu sëñ Bamba mooy may indépendance ñëpp ñu mayal ko ñu ñëpp ñu yeew bàyyi li ñu doon def ñu kar abdol di siy fee dañu doon liggéey waaye tey sëñ Bamba moo tax lii dañ doon ko def war nañoo toog ay deux ans defuñu ko tey ñu ñëw dekalaat ko et ça chaque année day wëy ñu ngi leen sant ñu leen gërëm fii sëñ Bamba fii sam ay baay daaru nañ ñun loolu la ñu sëñ Bamba xale yu ndaw di liggéey borom daaru ak sëñ Touba loolu moom amul ñu ngi siyaar yu wér di sant ñëpp du wax ba déwénaat ñu fekk ay déwénaat yu bëri ngeen ñëw teew télé bi bu mag li ngeen caméra ni yéen ñëpp yàlla yàlla dafa leen xéwal ak sëriñ Touba ak borom daaru sigóor yi waaw ni mu ko waxee euh, nee na ñoom dañuy maajal li nga xam ne euh, moo nekk sëñ bi ndax moo leen liggéeyal euh, ci réew mi macha ak àdduna sax mën naa la wax tey bésu la 4 avril bii suñu réew mi bu ñu amee jàmm ba ñun ñëpp di am jàmm sëriñ Bamba Khadim Rassoul tey moo ko waral ndax ku ne xam ne le 5 septembre 1895 fii la ci bureau bi Ndar sëriñ sëpp ñoo weddi yàlla weddi yonent bi weddi alxuraan tubaab bi ne leen signé leen ñu signé. maa ngi koy wax keroog fii ma ne am na sëriñ soo xamante ni keroog tubaab bi jël na seringue seringue bi pikir ko ci xar rocc deret bi pikir ko ci xaj rocc deret bi pikir ko ci xar mi ne xaale ma jaxate kala yow yaa fi mag ndax yow da ngaa jàng alxuraan damaa bëgg xar mi nga jël ko defar ko. jox ko sëriñ si fi teew yëpp sëriñ xaarima jaxate kala moo defar xar mi togg ko jël palaat yi maara bu fa nekkoon keroog nga ne sëriñ ngay woote ne da ngay wootee lislaam biñ la joxee sa palaat xewlu nga ko waaye palaat bi biñ ko ënnee ak Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yaakaaru jaam ñu tey ëllëg moom dong moo ne leerul ku ko lekk lekkoo lekkoo ndawal xaj nga lekk xaj waaw ma jaxate kala ci saayir moom moo magoon ku teel ki ci saayir ma moo ko magoon ci at mu ne ko man ma jaxate kala damaa fees dell ci alxuraan la ko tàmbalee baxara ba naas dara réeruma ci ci ci alxuraanu karim kon nag lii maa ko defar ci sama loxo bu sell bii wax bisimilahi rahmaani rahim ren di xar mi maa ko fees maa ko defar maa defar lépp ne ko mbàkke bala sa maa la mag fuuf ndax moom moo magoon sëriñ tubaa ci sayr mu ne ko maa la mag kon su ma ko defaree sa xel war naa dal sëriñ Touba ne ko dama ne xaari ma jaxate kala lii ku ko lekk xañ nga lekk ku teel ne ko lii ku ko lekk xañ nga lekk fii la la xewee bureau bii ci ndar le 5 septembre 1895 ah ñoom ñëpp jël seeni i palaat xewlu lekk ba seeni biir fees dell ku nekk jiital sa biir waaye palaat bañ tegal Serigne Touba Xaadim Rasool yaakaaru jàmm ñi borom nataal bii di borom palaat bi dafa ne sama xalima gi may bindee yàlla daf mu see defal kun fa yakun mu ne xalima gi yàlla da cee def kun fa yakun lu mu ne nekkal day nekk. serigne touba ne jeyi xass gi nako ciap ci daaj nako wicc ci plate bi xaji seeni biir ñoom seeni biir yépp ngeen dégg xaji naan mbaw mbaw mbaw mbaw barke khadim rasul fi la amé ndar fofu la dogé bu mu jami kon tay le 4 avril bu yexé fa lañu koy défé ci centenaire muy dakar président de la république di Macky Sall difa ñew dañu waron jël natalu baraj bi nataalu ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul def ko fa média bépp di ko wane comme ni ko média bii tey ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu télévision yor seen appareil doon ay journaliste ni ñu ñëwee tey gis ñu rek ñëw fas yéene ànd ak ci liggéey bi noonu la ko Sénégal gépp tey waroon defee bépp média kennal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ndax bu ñu ko talee tey ba am jàmm jongoma yu neex yeeg lal yu nooy yeeg mallaayu noo yeeg lekk gu bari géeg jàkka yeeg julli yéeg alxuraan géeg xasda géeg lépp lu mu fi mën a doon jàmm ji ngay am bay déglu ñu ba di déglu ni sax Serigne Touba la ko may. bu du woon ku tedd ki barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñëpp Sénégal ñëpp ay gens la ñuy tudd ay Mbóol ay Pendi ay Perara du ñu jaamu yàlla du ñu am du ñu xam alxuraan du ñu xam diine du ñu xam lislaam tey bu ñu ko amee Serigne Touba ñu ko may le 4 avril bu ñu koy wax. Serigne Touba teñu woon teñ bi yanu yan bi moo dem ci exil bi moo dem 33 ans la def exil avec exil Serigne ba Khadim Rasoul yaakaar jàmm ni bàyyi Basirou Bara maam yi dara ak seex di magu maam Thierno Ibra Faty ndéem dëru kenn du see Amadou Bamba Khadim Rasoul kenn du see Ahmadou Bamba Khadim dellu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëfe borom Touba nu ma leen ko waxee woon nag ñu ngi fii nga xam ne moo nekk Sam-Sam 3 ñu ñëw fekk fi Baye Fall ñëw fekk fi Yaay Fall ñuy def li nga xam ne macha allah mu nekk maajal ma laaj leen lan ngeen def ñu ne ah ñoom kat dañuy defal li nga xam ne maajal li nga xam ne moo nekk Serigne Touba maajal li nga xam ne moo nekk sëñ Modou Kara ah, sëñ bi nuyu naa la waaw ah, ñu ngi ziar baax soxna si Euh, tay ñu ñoo fekk leen Samsung 3 ngeen def li nga xamne mo nek nekk euh, maajal bi euh, di maajal li nga xamne mo nek bi ñi ñi di dem ay Dakar di def li nga xamne mo nek 4 avril bi yeen ngeen ne dedet daal di mobiliser wu daal def yaay fali daal di sumeku baay fali daal di sumeku ngeen daal di ñoo def li nga xamne ne maaj bi la man neena la puissance am ngi koy gis la première fois ma gis fali di def li nga xamne mo nek maajal li nga xamne mo nek bi tay lan mo ci nekkon seen taxaway waaw ñu ngi waxati jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bu wér li ma wax léegi rek ñun bu ñu amee jàmm rek si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ñu ko may ndax le 5 septembre 1895 fii la ci réew mi ndar fa la dogee bu mu jaam yëpp wax dëgg yàlla teeñu teen bi yanu yan bi 33 ans la si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul def ci loxo nasaraan bi kon tey dafa jot réew mi bu 4 avril jotee murid yi wala julit yi ñepp genn di sante Cheikh Ahmadou Bamba khadim Rassoul dafa jot wa sank doguma la dama deg ci tay biir wax nga wax li nga xamne euh, mo nek Dakar president bi dal fay tok def li nga xamne mo nek 4 avril nga ne pourquoi pas jëluñu li nga xamne mo nek photo serigne bi euh, dal di koy tek ci li nga xamne manam mo nek fofu nonu ñu dal koy delo ñukal ñun buñu amé jamm rek ci réew mi Cheikh Ahmadou Bamba khadim Rassoul moñu ko may mo natalam bi nga xamne moy mooy bi bi nga xam natal nataal bii rek la am moy bimu taxawé ci baraag bi ndiarém loolu dafa yell réew mi bu 4 avril jotee fële ca place indépendance muy place de l'Obélisque di place Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul man noonu laa ko tuddee ñoom nag seen dawlatu ñoom noon lañ ko tuddee place lobi lobi l'Obélisque waaye ñun yaakaar Serigne Touba ñun foofu place su Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul lañ ko tuddee dafa yelloon ngir moo ñu may jàmm ci réew mi bu jotee ñu jël nataal bi def ko fa place de l'Obélisque ñëpp gis ko ñu xam ne réew mi Bamba moo ko moom suñu réew mi Bamba moo ko moom loolu faaw ñëpp xam ko mu neex ak mu naqari Serigne Touba borom réew mi ndax moo ñu may jàmm moo teeñu teeñ bi yanu yan bi dem exil bi 33 ans. tey bu ñu amee jàmm rek Serigne Touba ah, dëgguma la sëñ bi sànq tamit maa ngi lay dégg si say biir wax ah, nga ne 4 ah, avril bi dinañ ko def daal di koy defaat waa wax bi yëpp nañ génn quartier bi yëpp nañ génn képp kuy jullit na nga génn feete li nga xam ne moo nekk 4 avril bi dama bëggoon xam ndax c'est la première fois ngeen koy feete wala c'est la deuxième fois ngeen moom du c'est nañ koo def mën naa ne 5 yoo xam ne ci ginnaaw def nañ ko maanaam dañ ko defoon nag deux ans nii yoo xam ne maam dañ ko posé woon waaye bàyyiwuñ ko woon ndax sant Serigne Touba kenn du ko bàyyi ndax jamono boobu liggéey bi nekk si daara ji ak suñu activité moo xawoon a bari moo taxoon léegi dañ ko dellu dellu delloo siwaat nag ci année bii dañ ko dellu siwaat fas yéene ko nag tàmbali ren di ko def nag ba ilal abat maanaam kat moo yor njiit bii man mi maay jëwriñ di man la ndax tamit kama kama kama teg si gox bi mooy Cheikh Ahmadou Kara nu mu tudd Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni jaaree ko tamit ci rakam ju baax ji muy maam Thierno borom daaru Noreyni borom daaru Noreyni nag ñun mooy suñu wasila ci kër Seydina Ousmane ñun waa daaru Muxti lañu bokk ci maam bi Ibra Faati moo tax it wax dëgg yàlla bu jotee dañuy xam ne borom daaru Noreyni ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim soo du ñaar kenn lañu moro bu jotee rek ñun ñëpp dañuy maase génn defee ko ci anam bi nga xam ne dafa rafet daara ji mbokk taalibe yëpp a ngi góor jigéen mag ndaw soxna si itam di suñu ginnaaw. soxna màgget Mbacke la tudd balay sa sang la nekk si ñun wax dëgg yàlla tamit di ci di ci di ci di ci soññee bu baax moom bokk na tamit ci kii gën a tax sax ma gën a tax mbokk taalibe yi taxawal ko ren ndax moom mi jamono yëpp mi si waxtaan ma naa ma jëwriñ nañ ko def nañ ko def nañ ko def kon dafa jot rek pour ñu waat ko yeesalaat ko ñu jëmi si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul leeru leeru moom maanaam leeram jëmmam leeru ku tedd ki la ndax sëtu sëriñ Touba Xaadimu Rasuul la kon mu nekkee ci suñu biir ñuy ànd di liggéeyal Serigne Touba muy soxna Maguette Mbacke kon tam day yel tam ñu présenté ko ngeen introduire ko tuuti. waaw sànq sànq jàkkaarloo na maa moom jàkkaarloo nañu woon fii sànq euh, ndagam nee naa temps bi mayu ma ko euh, damay daal di doxante xool ñi nga xam ne maanaam ñoo nekk fii euh, di la jaajëfal nee naa El Vision Médias benn événement nee naa la jaaykatu socc koy jël teg ko ci kaw table bi ñi nga xam ne ay Baye Fall lañ saxantumaak ñi nga xam ne dañuy liggéeyal Cheikh Rab Fall saxantumaak ñi nga xam ne dañuy liggéeyal Serigne Touba nee naa la bàyyi ma benn yoon ah. Euh, sëñ bi nuyu naa la. waaw ah, ñu ngi sant bu baax. tey ñu ñëw fekk la fi li nga xam ne ñëpp daal di daw fi nga xam ne moo nekk Dakar euh, di maajal li nga xam ne moo nekk euh, sëñ président bi tey ñu ñëw fekk la fi 4 avril bi yow nga koy maajal sëñ bi tey bëggoon naa xam loolu lan moo ko waral. waaw jërëjëf borom Touba salaamaaleykum man maay coordonnateur daara ji xam laa tudd Khalil eh, daanaka kon sëñ bi ñu moo ñu si nàmpatal daanaka kon avril boo xoolee boo xam nga day dem stade maam Marius Ndiaye fa la koy màggale 31 décembre da nga da xool maam xam nga ak na nga koy defee mais gis nga sëriñ bi day woote fële ak na mu koy defee moom moo ñu si nampatal tey xam nga boole ñoog maam Thierno borom daaru Noreen si nampatal maanaam ñun ñu koy dund nii lépp luñ gis rek dañu yaakaar ñun Serigne Touba la quoi ñun Serigne Touba la ñuy dund xam maam ñee koy defee xam du bokk ñun nañ koy defee xam nga ak la neex mais ñun maam Serigne Touba nii maam lii koy dundee lii lii bañ ko doon nañ ko def ay ay mais daanaka xam dañ ko gëj a def daanaka léegi dañ ko jàpp si daanaka ñetti fan lañ ko jàppaat nii xam nga ñetti fan lañ ko jàpp daanaka dama corona yenn bokk taal yooyu xam nga gars yi ñëw taxawee ko jàpp si bis mu ne loolu bis bi réussir nii macha allah yéen a gisandoo ñu nekkoon fi nga xam ne moo nekk sam 3 euh, ñëw fi fekk fi Yaay Fall yi ñëw fi fekk fi Baay Fall yi euh, man laaj leen def ñu ne dañuy def li nga xam ne maanaam euh, moo nekk daal di maajal sëñ bi daal di maajal Serigne Touba daal di maajal ba tey nee naa lii laa leen indiloon ànd ak waa El Média nee naa damay tàggatoo rek ba beneen yoon comme ni ma leen koy waxee rek nee naa El Vision Média xeebul benn événement nii laa koy defee saxantuma ak bi nga xam ne événement wu sëñ bi laa nee damay daal di tàggatoo rek ba beneen yoon di leen jaajëfal di leen wax bonne fête ci 4 avril bi Merci beaucoup.